élection <coughs> tey ñun bu ñu teewee fii nii ligue lu mu woote muy jàmm te képp kuy nit jàmm war na la yitteel ay sax amu fi trop trop trop mais dafa am lu ñuy gis ci làmb ji waxuma rek làmb ji mais partout ci jeunesse Sénégal temps yi muy violence dafa bari trop trop trop trop ba tax na li nga wax jàpp nañ fi ñaari yoon ñu war a jàkkaarloo ay fitna wala yooyu tax na ba tax amul looloo war a tey woote bi incha allah ñu toog wax làmb ji moom comme li nga wax rek dina am ak du am moom kenn waxatu ko am incha allah bu yàlla defee jàmm rek dina am mais di wax rek mbër yi tamit dañ ci am responsabilité bu mag a mag a mag muy si seen kàddu parce que nit ki du lu la neex wala fu la neex rek nga koy waxee parce que tamit am na li nga xam ni dafay dafay dafay yee xale yi ci ci ci ci violation ba tax na nañu xoolaat suñu communication bu baax a baax lu ñuy waxee ak askan ak askan bi mais di waxaat jeunesse Sénégal rek Sénégal jeunes yi lañ yaakaar suba pour ñu yor ko mais tey jeunes yi bu ñu yoree yenn comportement yi du ñu neex a wala sax kuy dund fii Sénégal sa xel mën naa dal. parce que li wax du ci làmb ji fépp ci muy football bi muy politique bi muy leneen ak leneen violence da cee bëri trop trop trop trop te violence amul lu muy defar bu ñu nee Sénégal ne pays de la teranga teranga bi suñu biir la war a mais pas ñu nek di yee ay fitna ay histoire yi nga xam amul amul benn sens jëmewul fenn dëkk bi xam nga di wax jeunesse bi rek ñu bàyyi xel ci loolu puisque réew mi seen loxo la war a mujjee nañu xoolaat seen comportement bu baax baax baax supporter mbër wala supporter ku mën a doon taxul ngay ñëw di xeex wala di sànni ay xeer wala non sport dafa war a boole mais warul tàggale loolu combat bu nekk am nga ko fi tàkkusaan bu nekk am nga ko fi mais tension bi ñu combat bi euh, dafa que dafa jéggi Dayo. lan moo waral lu ni mel alors que yow daje fait te a la que ataaya ak naa a mais damay est-ce que combat bi ben côté bi est-ce que ñoom affaire bi diisul si ñu violence quoi parce que moi, comme li wax bis bu nekk am naa ko ñu am bis bu ñu dépassé xam nga lépp dañ ciy dugg nuñ ci war a duggee dem jéem a defar mais su ma jiwul ne est-ce que leen ëpp doole ba tax ñu bëgg kii ak violence. da nga jàpp ni fitna bi yëpp beneen camp bi la du sa camp. Ah du sa amoo ci ñun keroog li am rek ñun bu ñu am na noo xam ne bu ñu defoon comme ñoom tey mën na toll fi nga xam ne tey dañ koy nettali deneen lay doon xam nga bañ yooyu yëpp moo tax xam nga ñu def yëfu mag tourné ndànk dem ñibbi. jërëjëf loolu moo doon proto propos introductif yi waaw. bëggoon naa ko laaj parce que boo xoolee. jëlal boo xoolee signature contrat yi ñu woote mooy bi ñu woote woon Sen TV. ak bi ñu woote woon Arena. lu ci ëpp Ama Baldé mooy jiitu si moom daal mooy njëkk ñëw. mais gis ne moom loolu moom mooy mujj ñëw lu ci ëpp coow li moom rek lay mujj ba. waaw parce que xam nga ay signature yëpp dafa am convocation bu njëkk bi bu ñuy dem. boobu maa ngi jokkoo ak ñi mu war a jokkal muy li ñu ngi toll fi di toll foofu benn dafa amoon coow avant ñun ñëw sax dépasse suñu kër amoon na coow ma ñëw ba taxaw côté boobu woo saa yi ñu ne ñu xaaral tuuti ñu régler problème bi suñu côté amul woon benn benn benn problème problème bi foofu la nekkoon ñi fa nekkoon ak force de l'ordre bi xam nga ñu ñëw dem après xat ñu mujj ñibbi keroog tamit noonu la demee ñun indiwuñu benn violence dañu def suñu escorte ñëw avancé ñëw ba jegee saat jékki-jékki gis ay xeer lu jóge fu nekk xam nga ñu def fu mag tourné ji bi ah. mais amul benn violence boo xam ne suñu côté la jógee comme ni ma la wax bis bu nekk am nañ ko ci làmb bis du ñu dépassé du ñu dépassé bañ def naka su dul noonu bu dul loolu tamit tey fu ñu yàlla teg ci làmb dañu war di defar rek dañu war a gis li nga xam ne luy ñaaw la ñu jéem ci wax wala jëf ci ba mu tegee ko mais nag du ñu indi lenn li nga xam ne violence la muy ci wax muy ci jëf waaw

gars yi sax dem nañu ba naan lutte dafa mel ni moom mooy provoquer lu ni mel pour que événement bi mu mën a jaay mais day tombé rek tombé moo waral ay gaaf lan moo tax ko Nicolaï événement bu mu dugg mu am toj bopp jàppal bàyyi ci yow la lu mu doon. waaw jërëjëf Malick euh, tey nag damay leeral lu bare làmb ji ñuy wax tey muy Modou Lo Ama bu dee man sëñ Fallou Luc Nicolaï jaaxal na ma bu yeboo mu bàyyi làmb ndax ren laa am 22 ans ci làmb waaw ku tëgg ay Mbour Nguer tëgg ay Mbaye Samb yaakaar naa ne yàgg nga ci làmb Balla Gaye 2 Modou Lo comme ni nga ko waxee sànq jaar na fi lu nekk gis nañ ko ci eh, fi mu mujjee itam gis nañ ko ci mais dama bëgg rek leeral benn mbir mu ndaw dalalaat xel yëpp ne leen man sëñ Fallou Luc Nicolaï maa ñëwaat man ci làmb ji maa jël làmb ji en main le 13 mars làmb ji dina am face à incha allah wa rabbi bu neexee suñu borom face à yi ñuy wax dinañu am te dinañu am ni ñu ko bëggee benn coow du ci am ben violence du ci am muy Modou mi tok di Ama Baldé ba may tëgg làmb ñoom ñaar ñëpp kenn takku ci ngemb kon ñoom jaaxaluñ ma donc tey dama bëgg a leeral askan moo tax ma ñëwal suma bopp gis naa nag ci réseaux sociaux yi ak fenen ak fenen ak ci presse bi ak ci télé yi ñuy wax waaw li respecté tout amateur yi du ñëw du ñëw ci face à face du ñëw motax ma ñëw tay pour leeral askan mais man ma ñëw modesté à part nak interroger leen histoire lamb yu mag yépp yi fi am ngeen interroger histoire ne kan moko teug ngeen laajte ba xam lépp làmb yu mag yi fi ne laa lay wax kooku suñu borom moo ko dogal du ci man ku yaakaar na ci man la yaa ngi juum yàlla moo ko jaarale suma loxo di wax ne nag bare na tey coow li bare na nii mu am ay ñuy tëgg làmb di wax mais ñu ci bare samay face à face kii mu ngi nii toog Malick mu fekkee ne lu bare samay face à dañ ma doon ñaan pour ñëw seetaan ko bi ma ñaan di ma laaj nan la ñuy defee événement dama bëgg ñu dalalaat xel yi wàcce tension bi fii làmb rek la mënul paase làmb te li ma leen wax ñëw naa face à face dina am maa koy diriger du keneen nag maa koy diriger te dina am te du yàgg dara dinañu toog moom dina toog Ama dina toog ñu wax te dinañu bëre làmb ji barke Cheikh